Buzz Actu 221 ñu daal di àddu nag wax li jëm ci appel bi nga xamante ni journaliste d'investigation milier di Pape Alé Niang daal na koy def di alerter ci naka noonu tamit di woo suñu ay célébrité suñu ay influenceur ci naka noonu tamit ñi nga xamante ni ñoom lañuy duppee leader d'opinion ngir rek ñu daal di àddu waaye tamit jël position ci li nga xam ne rek jamono ji askanu Sénégal mu ngi koy daal di dund di wax ne nag ñoom ñi lépp loo xamante ni jamono ji daal dinañ koy nekk askan wi ñoo leen ko daal di def ndax nag ñoo leen daal di soutenir ba ñu daal di toll fu ñu toll tey jilee ate nag actuellement Sénégal mu ngi traversé ay moment yu difficile maanaam rek mu daal di xamle ni jamono ji Sénégal mu ngi ci ay jafe-jafe ñu leen di buntu xatal ci naka noonu tamit ñu daal di violé li nga xamante ni mooy seen ak ak yelleef waaye tamit ñu daal di nemmeeku ab démocratie bu dellu gannaaw ak régime bi nga xam xam ne rek moo fi nekk di buntu xatal askanu Sénégal loolee lépp nag mu daal di xamle ni sénégalais yi ñu ngi koy daal di dund te loolee nag mu ñu daal di gis rek ñi nga xamante ni ñoom la ñu duppee porteur de voix dañu si daal di noppi àdduwuñ si benn yoon ba tax nag moom journaliste mi di Pape Alé Niang di leen woo jël seen engagement ci naka noonu tamit ñu daal di jël seen ay responsabilité ñu daal di jël position ñu daal di askan wi ñu daal di seen kàddu àddu violation bi nga xamante ni rek jamono ci askanu Sénégal ñu ngi koy daal di dund rawatina nag justice bi nga xamante ni tëddeewul njaaxanaay ndax nag képp ko xamante ni daal dinay joxe sa xalaat ñu daal di lay tëj mu daal di xamle nag jamono ji dañoo manqué li nga xamante ni mooy liberté d'expression ci loolee lépp nag ci régime bi nga xamante ni moo fi daal di nekk jamono ji moo ko waral ba tax nag moom Pape Alé Niang ne nag suñu ay célébrité nañu àddu ci mbir noppi bi nga xamante ni rek jamono ci dañ nañ koy def nañ jël seen ay engagement ñu wax nag li xew fii ci biir réew mi ngir nag Sénégal mën a nekk ci jàmm ndax nag noppi bi nga xamante ni jamono ci ay les de voix daal nañ koy def du yokk dara lu dul ay jafe-jafe wax donte sax mu ngay daal di xamle ni fii ci réewum Sénégal jël fi position doon na ab risque waaye tamit mun nga si jëlee ay conséquence yoo xamante ni rek mun na laa jural ay jafe-jafe waaye nag moom Pape Alé leen daal di woo rek ñu daal di addu ci mbir mili ci naka noonu tamit mu ngay daal di xamle ni bés bu changement amee si jàmm lay doon te nag bu ñu booloo doon benn dinañu mën a defar Sénégal ba lépp loo xam ne rek réew mu Sénégal daal di woon na ko manqué di jëm nag ci wàllum justice ci naka noonu tamit suñu ay constitution waaye tamit lii di démocratie bu dee lu gannaaw bu ñu booloo doon benn loolee mun nañ ko amaate fii ci réew mu Sénégal ngir nag Sénégal avenir bu normal des kaddu yoo xamante ni nag moom mi la di Pape Alé Niang moo ko daal di yëkkati daal di koy ñi nga xamante ni ñooy suñu ay influenceur ci naka noonu tamit suñu ay célébrité waaye tamit suñu ay leader d'opinion ngir rekk ñu daal di addu ci jafe-jafe yi nga xamante ni jamono ci réewum Sénégal mu ngi koy daal di dund te depuis boobu ak léegi gisul kenn koo xamante ni ci ñooñee dañ na si addu benn yoon